ma ñu tabaxal bi sax lii daayam lii bu baax gannaaw bu ñu sant yàlla jëli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant seexuna wasiilatuna mawlaana Seex Umar radiyallaahu anhu di sant xalifaam di Ñas ak imaam ratib Seex Ali Seex Tijaan Ali Sifi ak mbooleem xalifa yi nekk fii ci di sant sëñ Maay Ñas mii ci turu Alaaji Ibrahima Ñas seen mag seen xalifa ñu ngi sant yàlla lool ci dooleeku bii nga xam ne yàlla may nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax suñu moo wax ci hadiisu qudsi ne sama jaam bi du ma sant feeg sant kii du ma jaarale samay xéewal ci loxo siyaare bi barke bi bii ñu ci barke bi ci hittee sëñ Maay mii la nga xam ne at yi yëpp moo ñu ñaax li ci dimbali ba ñu mën a dajee dajale indi ko te xeeb lool jébbal ko imaam bu joxoon ñu ko Cheikh Ibrahima Fall kon ñu ngi ciy sant suñu maay di ci sant El Hadj Ibrahima di sant mboolem waa Kër Baye Mbaye di waa Adra di ñaan yàlla liñ ci indi leen déwén yàlla na indi lu te yàlla nañu fekk ci yoon te leen lu ci waay def yàlla ko yàlla fulandi. kon ñu ngi gëm ne siyaar nañ suñu sëriñ te gëm nañ ne dañuy yokk ndax siyaara ak siyaar danañ yokk boo siyaaree da yokk kon nag yàlla yàlla yokk ñun ñëpp kon nag bu fekkee déglu ñu ñu doon dafa ñu taw maa ngi fan gudd wa ànd ci barke ko yëkkati ci ndigal li ñu yëg daal mooy mbëggeel ak bàyyi saa yu nekk mu ngi doon te li ci gën a nekk kéemtaan mooy génération yi par génération yi bu ñëw rek gën a bëgg Mawlana Cheikh Ibrahim te mbëggeel gi dafa aju ci xol amul benn njistal lépp dafa sell mun de na ñu ngi ñaan yàlla bépp rëq-rëq boo xam ne am nañu ko ci barke Cheikh yàlla ko yàlla ndax fu rëq-rëq mën a tey ñaan gi du yem ci PM bi du yem ci aw toppam ndax Cheikh Ibrahim pour àddina bi yépp la mi nga xamee ne noonu la yoon saa sam ñëwee woon nekk jàng ci mboolem dama dama yi moom la Cheikh moom tam yàlla eh, ñëw na jàng dama dama dama ci barke ñu ñaan yàlla yàlla yàlla sax yéen ñi fi teew Ibrahima Sall rajo Al Baye FM rajo bu ñu bu ñu naw wax yàlla li ma ci ci ay xam-xam néew rajo boobu benn wax ne lépp lu réer ci Baye ci njëlbeen nga ba fi toll nii waxtu woo leen kon nag yàlla yàlla yëpp yokk borom rajo bi yokk ñun ñu fay liggéey te bi ngeen am ba kon kenn ku ne ngeen mën a jokkoo ak moom yal na yàlla may wér ak tal saa yu nekk rek yàlla na ko yàlla ñu ngi gërëm tam waa xawlullah ak képp ku ci ak foo mën a nekk nag ñu ngi lay gërëm ndax feeñu nekk ñoom mosu ñoo xam ne dem siyaare bañ déparé cent mille franc lañ déparé te jëlee suñu yëngu trois cent mille ay six cent te mboolem ñi ko dajale bu dul aaj aaj maam dem mi ñu ci doon ñëpp ay élèves la ba ci sama kër ñëpp li ñuy dajale ngir bëgg rek la waaye kenn mënu ko sax waaye nag waaye moom liggéeyal ko dafa yomb ndax lépp loo yéene ci barkeem ittoo ko rek yàlla defal ko ci barkeem kon nag ñu ngi gërëm képp koo xam ne tey yaa ngi aju ci aw la ak foo mën a nekk yan na la yàlla dimbali aw la nag ci. làkk olof mooy ndimbalal yàlla dañ daan dégg ci Mawlana Cheikh Sëriñ Bay mu ne xamul ko góor ko yàlla dimbalal xam loolu moo tax ñu tuddee dëkk ba xawlu baax xawlu baax ñu ngi ko jëlee wax ne wa kon da nga koy muy ñaari yëpp yi séparé lismu birri wa taqwa ak ismi wal udwaan ñaari yi mu amuñ ci solo birri wa taqwa rek moo ñu soxla lu baax ak ragal yàlla lépp lu noonu wala bàkkaar kooku amul ci benn dañ koy jéggalu yàlla rek waaye du ñu leer kon nag ñu yàlla yàlla yàlla dimbali ñi taxaw ñëpp président Ndeye Mar ngi toog dégg nga Lamine dégg nga Serif ngi teew kenn ku nekk bi nga déggee ne joxe nañ nangam dana ci téeméeri junne ak fukki junne. ak ñetti junni lim la ci limay tur yàlla yi kon ñu ngi ñaan yàlla bu déwénee yàlla xëy na ci ay millions. yàlla mën na ko yàlla ko yàlla ñu ngi jël gërëm di ñaanal ñëpp di sànq di ñaanal yàlla may ñu jàmm boole ñu may wér ñun ñëpp ñu dëgër ñu yokk ci saa yi ak baatin yàlla mën na yàlla ko yàlla.